jërëjëf Anna gan gi ni nga ko waxee mi ngeek ñun docteur Abdou Khadre Sanoko ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay bu baax. ma seen auditeur ak seen auditrice. ñu am mbégte ànd ak yow ci waxtaan wi war a tënku ci élection législative yi doon am démb ci Sénégal ak euh, ci yeneeni réew yi ci diaspora bi euh, ñu euh, tàmbaleek li ñu ci war a njëkk jàpp yan leçon lañ ci war a jàngatee yooyu élection. waaw li ñu ci war a mën jàpp de mooy Euh, askan wi li mu moom nangu na ko jël na ko jox na ko ñi mu ko bëgg a jox ci tendance lourde bi maanaam dañuy wax ne daraja ak sañ-sañu nguur askan na ko moom euh, bu amee àpp bi nga xam ne nii dafa jot mu war a yëkkati kàddoom séddalee li nga xam ne nii mooy daraja yooyu ak sañ-sañ yooyu ak nguur googu askan wi day jug def ko ba mu mat sëkk mu mel ni nag démb askan wi jox na bopp lool ñi nga xam ne nii mooy kujje gi donc nga gis ni euh, ñi nga xam ne ni ñoo ñoo wax majorité présidentielle maanaam ñoom ñi doon doxal moom ko nguur gi di ko dox ba fi mu toll nii lu ci bëri ci li rot ci xob yi nga xam ne nii jot nañ koo am ci li nekk ci bañ gàcce yi ñooñu dañu leen a wan ginnaaw jox bopp aussi euh, ñi nga xam ne nii ñoom ñooy euh, ñoom ñooy ñoom ñooy ku jéggi te loolu nag c'est vrai man bu ma koy analyser damay jàpp ni fondamentalement c'est vrai que wax nañu yeew yi pendant un bon bout de temps wàllu mais dafa am benn électron libre boo xam ne nii de manière calculée et tra dafa dafa dugg ci géew bi soppi lépp euh, loolu la ñuy wax nag euh, bërki démb ñëw bi nga xam ne Ablaye ñëw na ko hmm. finalement dafa dafa changé lépp donc man jàpp naa ni li askan wi ñaari laa ci euh, tënk benn bi mooy askan wi jëlaat na li mu moom mais beneen bi mooy vraiment Ablaye defati na beneen coup de maître politique pour complètement lépp chambouler parce que PDS bi ñëpp waroon fàtte mu ñëwaat nii en force ak wàllu mhm. te nga gis ñëw bi mu ñëw ak ni mu génnee ak ni mu demee voté ak ni mu même li taux de participation bi di néew néew néew néew néew am na ñu bëri ñoo xam ni démb dañoo génn pour euh, feddali seen coloré ak Ablaye mais pour aussi un peu si vous wan ko ne ko certainement li mu fi defoon bi mu nekkee président de la république ba léegi ñoom ñu ngi ko ciy delloo njukkal donc loolu yëpp nag moom moo wane résultat yi benn impair daal laa ci gis hmm. mooy taux de participation bi te c'est pas trop catastrophique parce que musul tollu ni taux de participation élection présidentielle donc législative moom mooy gën a wàcc ci suuf mais euh, askan wi daal jox nañ leçon yu bëri politique yi mooy fi mu nekk nii ñoom dañoo am envie comme wóolootuñu politiciens yi ñu séddalee carte gi kii ñu jox ko doole kii ñu jox ko doole mais surtout benn élément essentiel ñu koy wax troisième mandat que ñoom bugguñu ko dégg te duñu ko nangu te comme bii euh, dafa nekkoon premier tour loolu yëpp ñoom bëggoon nañu décider ba wax jooju ñu gas ko lépp doxee fi tàbbi géej alors ñu taxaw tuuti si Ablaye Wade moomu nga tudd ñàkk déclaration bi wala en tout cas yëkkati kàddu yoo xamante ni euh, mun na euh, yëngal géewu politique bi gisuñu ko si loolu stratégie la wala da nga jàpp ne xëy na leneen moo ko waral. xam nga Ablaye doxam. Hmm. waxam noppeem euh, solom. lépp message la tout <laughs> lépp lu mu def rek. am na loo xam ni daf koy tekki ci wàllu politique donc mënul woon a def déclaration bu instanger parce que soo xoolee bu baax même déclaration bi mu def en privé ci këram bi mu egsee te ñu génne ko ci réseau yi PDS génne ko da nga gis ni il parlait de wàllu de bulletin maa ko jiitee mais il parlait aussi de réconciliation ñi meroon nañ dellu si mën naa waxtaan ak ñëpp mais xaw ma ba xam dégg ngeen audio bi wax na lu am solo nee na moom même su amee majorité bi nga xam ne nii moom moo koy may mu am groupe wala mu ëppalee ay ay ay toogukaay ci biir pencum ndaw réew yi moom pare na pour waxtaan ak Macky Sall ak képp ku bëgg a tabax réew. Hmm. loolu nag dafa am loo ciy jàngatee su fekkee ni yow am nga xarañte bu toll ni ci politique. mooy Abdoulaye veut remettre sur orbite son fils et il a réussi hmm. nga PDS. Hmm. mais amuñu lu ñu mën a fayee jeunes yu jeunes yu politique bu mais je crois aussi que bu Karim demee ba nekk dara ci politique. na ko santee papam parce que ba ci dernier soupiram acte bu mu posé mi ngi koy mi ngi koy xalal boulevard hmm. te boo xoolee ni mbir yi demee nii mooy tey wallu dafay am groupe parlementaire am parce que minimum dina am entre dix sept sièges hmm. wala vingt sièges waaw su boobaa euh, ñaar fukki xobam yooyu wala fukki xob wala fukki tooguwaay ak juróom-ñett mais da koy permettre mu mën a waxtaan ak ku mu bëgg a waxtaan loolu la ñuy wax ci science politique le faiseur de roi justement ñun ñëpp déggoon nañu ni Abdoulaye Wade ni moom bëgg na njabootam. Mhm. nekk fii juróom fukki at di continuer à diriger. Mhm. donc euh, man dama jàpp ni dafa dafa am incidence bu ngand ci ci élection yi. Mhm. Euh, ñu ñëw xëy na sànq sax loolu lañ jeexalee woon mais ñu jaaree foofu wax ci euh, attitude bi ñu mun a xaar ci parti démocratique sénégalais maître Wade ak njabootam une fois à l' assemblée nationale ñu ngi wax cohabitation cohabitation mais est ce que mënuñu dem ba assemblée carte gi wëlbati politique ñi nga xam ne nii miinuñu ko ci def ko wala miinuñu ko ci jàng ko wala ñu ko ci observer ko. Hmm. pertinente question xam nga yéen journaliste yi da ngeen di yàgg a suivre les faits euh, politiques hmm. donc xam ngeen ni nekkul rek li génn ci mbañ gàcce yi moom mooy prédéterminer les choses. Hmm. pour ñu wax ne lii ak lii mooy xew. gis nga loolu mooy li ñu rang suba ba ngoon dugal ko ci euh, euh, bañ gàcce yi. mais gis nga buñ ci génnee. depuis démb ci guddi jàppal ni tractation yi ak waxtaan yi commencé na te loolu du Sénégal rek. Mhm. loolu la ñuy wax maintenant la carte stratégique. Mhm. cohabitation théoriquement mën nañ ko jàpp. Mhm. mais même ci biir yeewi askan wi sax jëlal wàllu nga teg ko ne le dina fa am ñoo xam ne nii ils vont euh, la majorité va aller les waxtaan ak ñoom te gisoon nañ ko sax ci nga xam ne nii moom mooy qui aurait pu imaginer que Moustapha Sy Djamil Serigne Moustapha Sy Djamil dina rejoindre le camp de bokk Benno Bokk Yaakaar personne ne pouvait l'imaginer mm. pourtant ci fonkal yi la bokkoon dégg ngeen li xew ci biir naataange ñu ne non non non ñi dañ leen a def lii ñi dañ leen a def lële alors bu leen fàtte ni aussi mine de rien benn xobu bokk gis-gis boobu Pape Diop est libéral mm-hmm. même su fekkee ni amul ay ñu bëri ñu ko jox bopp mais dina am benn siège assemblée te bokkoon na aussi si élection te am na mbooloo ak lu mu tuuti tuuti mm-hmm. waaw donc yooyu yëpp nag dafay reposer waat ci kaw table bi que carte yi certainement Macky Sall nag moom mooy am pour choisir mm-hmm. est ce que da nangoo dem waxtaan ak tey waa ñooñ wala da def face aussi ak sa waa ñooñ su fekkee ni dafa waxtaan ak ñoom ba jubóog ñoom ci ay schéma yoo xam ne dañuy remettre ak Karim Wade sur orbite mu ñëwaat ñu jox ko gëdd joxaat ko bopp joxaat ko aussi ay daraja yu bëri mun na am effectivement euh, un peu la famille libérale redoré waat encore seen blason parce que en fin de compte wax ji jeexagul parce que su defee ci rek wàllu ak yeewi ci biir assemblée nationale cër yi nu ñu koy séddalee kan mooy am nombre tànk yi nan la ñuy ci politique gis nga ni xiiroo ak ñaayoo mun nañ fa jur. Mm. beneen bi dafa am benn dualisme boo xam ne nit ñi noté wuñu ko mooy Karim Wade va être président de la République te leaderu yeewi askan wi mooy nekk premier challenger am. Mm-hmm. muy Ousmane donc suñ ko boolewaatee ci yëf yi moom mu am ñu ko jàppalee am ñu ko soutenir am ñu ragg deram am ñu raxas deram ci biir politique amul dara loo xam ne ñi ñàkkul war a mën a bañ a nekk mais en tout cas sur le papier li ñu mën a gis mooy wii cohabitation lay xeeñ mais cohabitation boobu mën nañ cee dem mais après ñu déplumer aussi donc foofu nag laay lancer un appel il faudrait que opposition bi ñu vigilante mm-hmm. parce que suñ ko def Abdoulaye yàgg na am dans l'histoire politique du Sénégal ay groupe parlementaire il allait se retrouver avec huit ou sept députés mhm. parce que parti socialiste dañ doon jaar ci suuf récupérer ñëpp ñu ñëw seen majorité donc si politique loolu aussi lu mën a nekk la donc euh, man daal dama jàpp ni pour le moment c'est vrai euh, am na peut-être benn tendance bu desinu mais pënd bi wureegul carrément mhm. parce que politique yi bul jéem a xam dara loo xam ne ni capable nañ ko mhm. pour faire revirer la situation. mais ki gën a gagné ci élection yi bu ñu la déggee dafa mel ni euh, euh, wàllu la Abdoulaye Wade ak njabootam. sans aucun doute. Mm. bu fekkee ni xam nga politique. Mm. bu fekkee ngay wax yàlla di analyser ay faits. Mm. le grand vainqueur. c'est Abdoulaye Wade je vous rappelle que euh, ci local yi amuñu woon maire yu bëri. je vous rappelle que bon quelque part même avec Wade ni mu xawee jëm mag Karim Wade ñu isolé ko. dafa sañee ñu bëri nga xam ne dañoo nekkoon ay kàngam. Mm-hmm. jóge nañu biir PDS dem rejoindre Benno Bokk Yaakaar. ñu bëri ñu la quasi totalité dañoo décapité PDS. Mm-hmm. ñuy résister résister résister ci élection législative bu mel nii nga tegaat benn coalition fexe ba am groupe parlementaire fexe ba bokkaat aussi ci langue gi. Mm-hmm. mais je dis man pour parce que Yewwi kenn werante wu ko woon ñoom ils sont juste venus parce que lii mouvance bu ngand la woon en terme de rapport de force mbedd yi mobilisation bi. stratégie communication bi wàllu moo fi nekkoon. Mm. Euh, euh, yeewi moo fi nekkoon. Mm. yeewi moo fi nekkoon incontestablement. alors sen leader oral bi mu am ñu koy tuddee Ousmane Sonko fu mu dem mbooloo yi dar ko nit ñi topp ko mu siiw am bayre bi nit ñi bëgg ko moom moo fi nekkoon. mais Abdoulaye Wade en presque en à quarante huit heures du vote bi mu ñëwee il a ravi la vedette à tout le monde on a j'ai envie de dire ce ce un grand coup de maître du maître. Mm. wa mais li mu am nii PDS war nañoo sant yàlla mais war nañoo gërëm laa hmm. parce que daf leen a daf leen daf leen a tegaat encore ci yëf yi euh, dugalaat leen encore ci làng joxaat aussi carte yi nga xam ne nii seen candidat présidentiel bu mujj bi te muñu ñu ko nangu daf ko ñàkkoon mu joxaat ko mu remettraat ko les cartes parce que tey yeewi dañuy wax ak wallu mais benn aussi dañuy wax ak wàllu hmm. alors nag comme ñoom ñoom moom seen cëggal guy su boobaa fu leen neex ak di leen arrangé mais loolu la ñuy def pour pouvoir continuer aussi te lu probable ndax ay waxtaan commencé woon na déjà ba ay jéego ñu teg ko waaw non mais pour entre probable entre kii kii euh, wa wàllu ak benn Bokk Yaakaar mais c'est la même famille hmm. de réunification de la il n'a même pas parlé de réunification de la famille dajalewaat njaboot gi dajalewaat njaboot gi yëpp yamu ci Abdoulaye dafa pour ci xarañte politique am mais Macky Sall da ko woo mu dem wuyu ji ko. Mhm. ñu ne déet na waaye ñu tuddee ko stade ki Dembo Ndiaye joyau bi gën a mag ci infrastructure ci Sénégal ah loolu mu dellu si moom ne pare naa pour ñu frustré wu woon ñu ñëwaat ma waxtaan ak ñoom. te ñibbiseem gi tamit waxu fi dara lu ñaaw. jëm si président Macky Sall waxul daar bo voilà xam nga xam nga tamit sénégalais yi dañuy war a waxul daara lu ñaaw lu jëm si newul attaqué wul individuellement et intrinsèquement Macky Sall. taggul yeew wi aussi. taggul benn mieux gis nga bi muy communiqué daf ni man liste bi man man maa dirigé wàllu mhm. ca fin ba ca fin ba a une seconde ci la wax ni woy ngeen voté wàllu yeewi effet stratégique mhm. te Abdoulaye Wade man ni ma ko xamee bokk ci jàngat ci gëstu man jàpp naa ne bis boo ko tegalee benn liste entre moom libéral ak ku dul libéral ku ku nekk libéral lay choisir waaw su waree su waree rapproché wu entre ñaari camp camp bi nekk libéral boobu la Abdoulaye Wade di dem. voilà. alors yi loo si mën a wax aussi euh, ñi ngi def percée euh, tey ñu bëri di xaar ci ñoom euh, changement pour ne pas dire rupture ban attitude la ñu war am assemblée nationale pour jubóole askan bi ak assemblée bi de manière plus générale askan bi ak classe politique bi. ah mais am nañu chance bu rëy de. Mhm. parce que sénégalais yi véritablement dañoo foqati lépp jox ñoom waa Yewwi seen leader ak ñi mu àndal ñu ci bëri bi ñu duggee ci politique yàggul ñu fekk fi ay dinosaures page boobu ils sont en train de pouvoir tourner ça d'ailleurs gis nga mouvance bi su waddee non seulement dañuy wadd mais dañuy yóbbaale toute une classe élitiste politique yéen ay xale yu ndaw mosu leen nekk ministre mosu leen nekk yenn affaire ñu ñëw jox leen ko donc sas nañ leen sas bu rëy ba ñu war a mën a doxalee lépp loo xam ne dañ koy doxal ñu war koo mën a def ci jege askan wi ci xool intérêt askan wi par ailleurs dama ci am nag benn inquiétude mooy crème bi waroon a dem assemblée nationale demul Ousmane Sonko demul Aïda Mbodj demul euh, Habib demul Déthié Fall demul mm. te ci histoire politique ñi ñuy teg ci suppléants yi mm. bon ci dama koy rek caricature mm-hmm. nekk ñu ay roi wala ñu nekk ay as wala ñu nekk ay dix en général kuñ fo rek jël waaw ah, ku ñu fool jël remplissage la ñuy def daal à certain moment léegi nag yàlla ak dogalam ñooñu la yàlla tudd ni ñoo nar a nekk député mais est-ce que dinañ am dayoo bi hmm. est-ce que dinañ am xam-xam bi est-ce que dinañ am dal bi est-ce que dinañ am euh, mat bi hmm. point d'interrogation est-ce que sax nit ñi duñ ci profito pour pouvoir débaucher ci avec tout le respect que je leur dois je suis hmm. dans le conditionnel damay rek laaj te léegi nag qualité bi ñuy xaar ci assemblée nationale bu jugewul ci département yi ñëw te ñooñu ay benn benn lañu lañu mm-hmm. parce que liste proportionnelle boobu su ñu deful nag lafa fa yeewi nar am mm-hmm. je suis désolé ñooñu gaw ma ni li askan wi xaar si ñoom dinañ ko mën nañ ko bëgg mm-hmm. mais est-ce que dinañ ko mun def te su boobaa ce sera une grande déception moo tax ma naan sénégalais yi mën nañu folli mais aussi dañoo am problème mu fal waaw parce que tey wax dëgg yàlla ci ñu nekk ci liste proportionnelle xanaa ñu nekk ci wàllu peut-être que ñooñu quand ñu xamoon nguur lañ ñu yàgg ci assemblée lañ ay ñoom Lamine Thiam ainsi de suite. bu ñu wàllu jiwul benno mais voilà bu ñu wàllu jiwul <laughs> benno waaw parce que fi mu nekk nii tur seen tur bi sax daf leen a wuyu. Mm-hmm. wallu nañu waaw mun nañu wallu ku nekk. mun nañu wallu ku nekk képp ku ci war a mun a doxal jëm ca kanam. Mm-hmm. ñoom soo leen tàllal suñ la tàllalee loxo dinañ la génne ci jeu parce que il faut reconnaître que seen liste. tey ji professionnel moo gën a am ay nit ñu valable pour nekk ay député mhm. même si valable da koy jëlee entre guillemets mhm. je parle de seen dayoo ak seen xam-xam effectivement ak seen expérience mhm. mais bon c'est c'est ba bas où le bas blesse bi dafa am ñu mu bloqué bon euh, seen aussi radiation yi am ñoo xam ne nii mu téyle parce que tey vraiment ñi yooyu defoon ci quinze premiers sur les listes mm. véritablement incontestablement c'est des leaders politiques extrêmement yoo xam ne mënoon nañoo def différence mais ñi ñi mbir yi tëggee nii. Hmm. en tout honnêteté gëw ma ni. gëw ma ni <laughs> véritablement li ñuy xaar assemblée man dama dama yàlla baal damaa jàpp ni sax assemblée bu bu gën a. bu yées bi ñu weesu moom la ñu nar bu yées bi waaw moom la ñu nar a moom la ñu nar a pas parce que pas parce que coalition yi nekkuñu ñu coalition yu baax. Hmm. mais ni mbir yi tëddee ña fa dem xaaruñu ko woon te amuñu aussi dayoo boobu. Mhm. mais bu fekkente ni cohabitation bi ñuy euh, séentu dafa euh, tëggoo noonu maanaam euh, yeewi wallu dem yeewi ji wallu ji yeewi ba ñu am un groupe parlementaire fort am majorité est-ce que réew mi mun na am fu mu taggatémbe si ni muy doxee écoutez cohabitation moom bu fekkee ni dafa am lépp mi ngi dépendre si Macky Sall ak si homme politique yi damay faral di wax ni ñaari leader yu yeewi ak Benno dañoo nekkoon ci benn ñoom ñaar en tout cas di xoolante en chien de faïence mm. ba mu am benn genre sorte de mbañeel goo xam ne dugg na seen diggante officiel comme officiel parce que Ousmane Sonko la làqatuwul mm. li mu xalaat da ko doon wax mm-hmm. mais xam naa ni Macky Sall pexe yi mu doon teg yëpp aussi moom mooy di def de sort sorte que Ousmane ko bu mu am ndam ci projet politique am mm-hmm. léegi su fekkee fàtte nañ seen bopp su fekkee jiital nañ njëriñu Sénégal su fekkee Sénégal rek moo leen ñor seen état d'âme yooyu dañ ko war a jël teg ko fële ci suuf mm-hmm. jéem a concentré wu ci liy doxal Sénégal te loolu ma Sall la incombé mooy mu égoom li ñuy wax maanaam euh, dayoom ak darajaam ak yëg-yëgam mu teg ko ci suuf nommé benn premier ministre boo xam ne day jóge ci opposition bi alors su boobaa mu wan aussi sénégalais yi moom euh, voilà def na décortiqué na message bi waaw décortiqué na message bi mais wane na ni nekk na ci disposition pour déglu li nga xam ne loolu la ko askanam sant mu def mm. su boobaa mu mettre la pression sur Ousmane Sonko à loi bu ñëw assemblée su nekkee ab boo xam ne progressiste la dafay révolutionnaire la dafay jéem a permettre peuple bi ñu souffler seen i jafe-jafe ñu saafara ko hmm. su boobaa député yooyu ñoom ñoo bañ mais ku nekk su toogee ci sa xeer hmm. ferenkulaay ci ne du ma wàcc ci ma nekk alors su boobaa Macky Sall dem nommé aussi beneen premier ministre commencé di discuter ak di calculer ak ay waa walloog ainsi de suite mais évidemment ci blocage institutionnel lañ jëm mais xam nga yàlla hmm. dafa bëgg Sénégal en vérité lenn moo ñu ci nar a mooy loolu même su dee blocage day am ñaari at lay am maximum. ñu jeex su boobaa assemblée bi dañ koy taj mu am beneen élection ku gagné day tas assemblée bi ñu organiser beneen. su boobaa aussi askan wi retenir leçon. Euh, jël dogalam que que ni mu retenir leçon que ni. effectivement ku jéggi mu fi tegoon joxoon ko doole. Macky Sall ñu fi joxoon joxoon ko presque ñaari mandaa su boobaa askan wi xam ne ñii seeni euh, daraja bopp la ñuy jiital plutôt que intérêt wu sénégalais et su boobaa aussi ci biir élection boobu. mun nañ sanctionner aussi bien opposition incarnée par Yewwi que le mm-hmm. pouvoir incarné par Benno que ñu gis benn trouble fait bu jugee de nulle part mm-hmm. ñu ne comme ñoom ñaar ñi ñëpp dañ leen a wóolu woon ñoom delloowuñu ko ñu woteel kooku mu mu ñëw mu venir de loin mm-hmm. fa kenn gisul mu gañe donc moo tax ma jàpp ni xarañte ñi nga xam ne ñoo nekk Yewwi ak Benno du leen yóbbu foofu d'autant plus que ci diggante bi société civile aussi foofu la war a doxee parce que ñoom doo leen dégg lu dul bu ay contentieux ak suy amee avant muy am il faut ñu dox. gàttandu yëf si Macky Sall ak defar mbir yi leen toog leen ngeen waxtaan ñu tracé leen benn chemin ñu jaar ci et puis su boobaa jàmm na ñooñu sénégalais yu bénéficier aussi. jërëjëf euh, docteur Abdou Khadre Sanoko amoon nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey euh, ci wàllu politique euh, xarañ nga ci sociologue nga aussi ak psychologue jërëjëf. waaw waaw jërëjëf man maa leen di remercier parce que sur 17 millions de sénégalais ñu def élection. ñu xëy suba seen xel dem ci man donc loolu kóolute googu maa ngeen leen ci remercier bu baax mais aussi di féliciter peuple sénégalais bi ci fulla gi mu am jug xuloowu ñu xeexu ñu solu ba rafet dem voté ci jàmm ak salaam ci ñu bëgg a jox seen baat majoritairement ñu jox mais aussi que ñu respecté minorité yi comme majorité parce que ñoom ñëpp ci électorat sénégalais bi ay citoyen lañ mm-hmm. donc ñu ñu dox jàmm wax jàmm te bu ñu dugg si aussi ay contentieux post électoraux mooy sénégalais yi gagné ba pare yéen politique yi ngeen dem di xuloo di ba sunu sagaru jàmm ji ñu am ñëpp ñeewee ñu ko mm. ñu ñu bafoué ko donc euh, xanaa peut-être aussi terminer que certainement que tey moom